كليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فر ومالكي إلى خير ناس خير من وطئ الثرى خير نزار خير حي وهالكي منكليني يا سلمى سلميني لمالكي سأمشي لطه خير فهر ومالك إلى خير ناس خير من وطئ الثرى وخير نزار خير حي وهالك كليني سلمان salma ibaara yi nga xam ne woykat yu jëkk yi am nañu ko ci daan tàmbale seen woy ci mais xasal bu gàtt rek la ko def moom kii nii salma man salma bàyyi ma sama bopp bàyyi ma salimi nii jébbal ma li maaliki ci aji moom sama kii yàlla bàyyi ma yàlla seulement bàyyi ma yàlla dégagé sa am si xal si naa dox li taaha jëm ci yoon ci al muhammad mi tudd taaha xayri fihlin mi gën ji képp ku askanoo fihr ci maamam yi la wa malikin ak malik ba tey ci maamam yi la سأمشي أنا سأسافر سأذهب قالوا ما لا إلى خير ناس jëm ci gën ji mboolem xeetu nit naas boobu dañ koo nakkiraal pour bu mu bàyyi kenn xayri man wati assara gëj ji képp ku mësa teg tànkam ci kaw suuf wa xayri nizaarin ki gën ci képp ku askanoo nizaar ci maam yi la ba tey xayri xayin gën ji képp kuy aji dund waxaalikin ak jépp aji dee kuy dund ak ku dee yépp ki gën ci ñoom man foofu laa jëm محمد مامون السماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي يورقني ذكرى صراه بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك محمد عليه الصلاة والسلام مأمون السماء كي كنولو يالا أسمان فوفو كناية رجلا ودقل سيال نغم يالا لن بغاخرك ci ku ci julit kay rasuluna moy wahabtu may naa lawu ñeel ko si suma bopp moom jébbal may naa ko sama bopp maanaam lu mu bëgg ci lay ne wa kullu ma maaliki ak mboolem lu ma moom mi ngi ci disposition loolu moo tax nit ñëw di ko di soxlaam fekk bàyyi ko ëpp soxla ci xaalis dara ñëw la fa njëkk ñëw mu jox ko waa ji ba waa ji xam yu ërriqu nii dana fog loo ma toujours mooy maanaam ñàkk a nelaw ku dara empêché ba doo mën a nelaw insomnie yu ërriqu nii dana fog looma ma zikra suraahu fàttaliku ma fekk maa nga nekk bi makkata ci bi makkatin ci makka dafa nekk ci rajab gannaaw daje rabita bi euh, guddi sabu seen rajab màkk lañ jullee timis départ bu ko julli ci fajar medina mu ne yurriquni dikra suraahu bi makkatin wa qad kittu asri aw saraytu kadalik waaw maa nekk fa nag di waaj nelaw ma ci guddi gi ca màkka xaw naa wala sax rañaan na kittu ësri ci wax yaaram mooy doon naa waaja ndax kaada bu saxalee rek dàq na bo noonu nag maa kittu ësri kon bu dàq rek saxal na dem naa bay waaja ñàkk rañaan sax muteki na ne aw saraytu wala sax ma na كذلك كم ريان جوجي رأيت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء بين ذي هنالك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفى لي وقتي في بعد تهالك سريت رجعنا مولار ركن بروحي جسم الروح من رجعنا روح لا دف aqtafi mbir moom dana ma topp tracé jismamu ahmadin yaramu yonent bi maanaam yonent rañaanam nga jëmm la ak roxo waaye nag sama roxo gi itam nag ci guddi fàttaliku rañaan gi rañaan na jaar tracé booba meen roxo sama roxo la fa tamma tammat ak daje bayna day ni diggante roxo gi ak jëmm ja ci fàttaliku hunaalika foofa أن هناك تلاشى الروح بالجسم فانيا صفى لي وقتي فيه بعد تهالكي ولا هناك هناك فوف موي واخ تلاشى لسي الروح روحه بالجسم ci yaram bi faniyan mbir momi kon daal ci gàttal jeex na ci yonente bi ci guddi gi ñuy fàttaliku rañaana safa sall na lii ñeel ma waxti sama waxtu fii ci moom yonent bi baada taxaalukin ci gannaaw maanaam jeex gi ba tey ndax taxaaluk mooy anéantissement waaw kontaan نبي كريم أكرم الله خلقه ببعثته رحمة لناس وناسكين من الكفر والإشراك حرر داعيا إلى الواحد القهار هاد المناسك ونبي موم دي أبي يونت كريم بتد تبه akrama taral na allahu yàlla xalqahu mbindeef yi mbindeefam yi moom yàlla bi bixsati yi ci yónni gi mu ko yónni le fait yàlla yónni yoon ci al muhammad ci mbindeef yi rek doy na taraanga mbindeef yi Seyd Qutb bi muy firi iqra dafa ne dëgg dëgg dëgg dëgg boo seetee moom buñ ko doon laaj bés bi gën a màgg ci bés yi ci qiim mu ne daal day foog ne mooy bés bi iqra wàcc ndaxte daal suñu ngolob su ndaw si perdu dans l'infini dëkk su nekk fee mbindeef yi nekk nii nga xam ne teg boo ko seetee ci li yàlla bind ak lii moom doo xam lu mu représenté iqra ci yàlla consacré ñu fan ñaar fukki at ak ñett mel ni ku gàtt ci kaw asam ci suuf asamaan na lay gàjjante yàlla di ñu toppatoo di ñu ommat bés boobu daal yaakaar na moo gën a màgg ci bés nabiyun karimun akrama allahu xalqahu bi bi'satihi ruxma yërmaande li naasi ñeel ay nit wa naasikin ak aji fàtte wala aji jaamu yàlla wala bi bi'sati ruxma pour ñépp li naasi ñeel aji fàtte wa naasikin ak aji fàttaliku bay jaamu yàlla wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina ñu ne al aalamu kullu ma siwa allahi kon nag yónnee koom ngi yërmaande ñépp la min al kufri wal ishraaki xarara daaciyan ila al waaxidi al qahaari haadi al manaasiki xarara goreel na képp ku ko déglu minal kufri jëlee ci tënk yaa moom weddi yàlla wal israak ak bokkaale mi ngi mel ni ku nekk kaafir weddi am ak yàlla gi wala ko koy bokkaale leneen mbaa keneen yonent goreel na la boo ko dégloo léegi jaamootoo sa bopp jaamootoo xerem weddeetoo yàlla daa yan mbir mooy aji woote ilal waaxidi jëm ci yàlla mi kenn alqaxaari kii notaakoon haadil manasiki ki aji jubal nit ñi ñu xam nu ñuy jaamoo ak nu ñuy ajee yonent la xamal yonent jiitu naan xudu anni manasikakum ni may ajee noonu la da leen def noonu وادبه إذ صير الذكر خلقه وشفعه في الخلق رب الملائك كل شفيعا يا رسول فإنني خديمك أدعو دارك العبد دارك وادبه إذ صير الذكر خلقه وادبه تم يركو يربو رفت لتخ إذ بم إذ صير بم مجلة مم يلا ذكر القرآن خلقه مجكم مم يلا مم أدبني ربي فأحسن تأديبي يلا ما ير رفت الاسم ير لول إيفيدما إيه، إيه، تنك القرآن جهيدك نكو وإنك لعلى خلق عظيم خمغا انت على خلق عظيم من رجلجا ديون تگ وينغو انك جا عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا يا شوكو مانام اكسبت رموم في الخلق تي ميندي فيغا خامي داني ام بروبليم جيبس بن رب الملائكه برم ملائكه تي مو يالا ادبني ربي فاحسن تاديبي شفاعتي ثم نينا

واي نك الواي لي نيال ما شفي عندي اجرمو فسما برم يا رسول يوين انت اي يا رسول الله فانني من ميكت قديم وكسبك نيغلا ادعو مانغي نيان دي وخنه مانغي ووتي دي وخنه دارك واي دباتل العبد جامبي دارك دباتل كو موي تكرار توكيد لفظي waaw oh, sa néeg laa maa ngi nii maa ngi ñaan nga nga dabaatal ma فليت لا أنفك أخدم دينه ولو واجهوني بالأذى والمعارك أراني لدى البيت الحرام وإنني منايا لقى من جاءنا بالمناسك alaytu laa an fakku axdumu diinahu walaw waajahuuni bil adaa wal maariki mu ne fa alaytu gëñ naan nag booba laa gëñ ne laa an fakku du ma dañ mukk axdumu di liggéeyal diinahu diine ji moom yonent Yàlla Muhammad waaw du ma sànni mukk suma bakkan du ma sànni mukk suma ngànnaay walaw waajahuuni di lii sax jublu songu si nañ ma bil aza ci lor wal maariki ak ay combat ak ay xex waajahu ni bu fekkoon sax ñi may lor ci li may def lor dañ ko tay waye dara du mu ko bàyyi moo taxoon mu ne aliun aliinu liman yaqful amina wa innani shadidun wa saabun is uqaadu ila al ahwa ci beneen xasida ku nekk ci lu baax daal topp yonent bi moom damay nooy nepp bu may jëflante ak yow ku ma bugg a omban ak yow bu ma ci caaxaan ku jafe la ku naqari deret la uraani lada albayti alxaraami wa innani munaaya liqaa man jaana bilmanasiki uraani maa ngi gis sama bopp lada albayti fa néeg ba alxaraami bañ xor badi buñ xormaal mooy al kaaba ak masjidul xaraam maa ngi nii ci biir masjidul xaraam wa inda nii tanaka man mu naaye ay mébir sama mooy lan liqaau man jaana dajee ka dikkee woon nañu bil manasik ci xeetu jaamu yàlla yeeg aj maa ngi nii ci kaaba gi kaaba gu baax gi waaye nag sama mébir mooy dajeeg yonent bi وبثي وحزني أشتكي لخالقي بيمن المقفى مكتفى كل سالكي تكاتل أجناب الضلالة صوبنا يا ربي شكوى فهو خير مداركي وبثي وحزني أشتكيه لخالقي xam nga alquran nee na innama ashku bathi wa xusniya ila allah mu yaquba mu ne ba tey suma jàqare yépp maa ngi koy tawat sama aji bind mooy yàlla xam nga kon bayti yiñ xam nga dugal na ci biir ci waxi teggin ne yaa problème wax na dabaatal ma wax na ràmm ma wax na duma maa bañ même buñ may lor sof duma bàyyi li ma ne maa ngi nii nag ci kaaba gi léegi maanaam sóob bi tëb gi dafa gaaw su ma mën a mooy tase ki indiloon jaamu yàlla yi muy yonent bi mu ñëwaat ne am naa jàqare yu may tawat mais yàlla rek laa koy tawat bi yumnil muqaffa ci barkeb yoon ci al muhammad muñ topp mi muxtafa kulli saalikin ki nga xam ne mooy kuñ toppi képp ku sóobu jëm ci yàlla bëgg lu baax moom lay sukkandikoo moom bu ma tawatee yàlla itam maa ngi jottandikoo barke yonent yàlla muhammad hmm, ndeysaan maa ngi fàttaliku sama yoon woo ba tey lu ma fi yàgg yéex a réaliser li ma bàyyoon yoon nag am benn guddi goo xam ne dama dem kaa bëgg nag def fa ay ñaane ki tawaaf ñëw nag dellu si ci hôtel bi nag di kii rek ba ca njël ma def ay bayti di ci toroxlu yàlla nag ndeysaan maa ngi ciy fàttaliku bassi wa xuzni lastu ashkuhuma illa ila allahi alqaribi samad الخلق والأمر له وحده وليس لي من دونه ملتحد Okay, yo ke ce fawi ke wanda sa manki manki kila bana bani bana bana qitala bahru bahru mutakhayil khamis bahru sariya إني وإن عوقت في مكة وحلوا لك الجو وفاض الكمل آه، آه، آه، ضمن ووسوس الشيطان بعدا له يلحف في الوسواس لا يتئد وملني الفندق فانتابني من ملل الفندق حزن أشد يسألني الفراش في حيرة غدا مسير الشيخ أم بعد غد من أشكو من بثي وحزني لست أشكوهما إلا إلى الله القريب الصمد الخلق والأمر له وحده وليس لي من دونه ملتحد ليس أطوف بالبيت ولي مشهد قد وحد السبل الكسار القدت ليس ممكنك مع خمق في لا بسي وحزني أشتكيه لخالقي ولا خمق مملا ربنا bi yum nil muxafa muxtafa kulli saaliki mu ne takaatala dajaloona ajnaadu dalaalati mi ngi mel ni soldaar yi réer yi leli réer yi sawbanaa jëm ci suñ boor maanaam ay mbooloo yu réer dajaloon nañ pour ñu li rabbi jëm na ci suma borom moom kenn nag la mbir ma tàng-tàng chaque wan tawat foofu moom xayru mu daariki mooy gën ji aji dabaatal كدأبك ربي حقق النصر عاجلا وقد بلغ السيل الزبا فلتداركي بعلمك أحزابنا ضلالتي قبلنا تبدد ترميه للمالك دائرة الفضل كن ونفرنا ورغي قد يا الله نلقي جل الكسل سيدي برام